PDS daati na indi organisation bu yees ci ñu koy jiite ci réew mi di Sénégal PDS nag dafa daal di rétrogradé kii di Mayoro Faye ak Cheikh Dieng Mayoro Faye nag moom nekkatul secrétaire national chargé de la communication ci biir PDS ku ko remplacé moom moo di Nafissatou Diallo kii ci topp nag di Cheikh Dieng moom daal na bàyyi postom muy secrétaire national chargé des élections kii di Maguette Sy nag moo jël place am googee Les nag moo joxe xabaar googee ci ajuma benn fan ci weer gu suleeti gi ñu ne jàpp ni sax nag ñu gis ni loolee Karim Wade moo nekk ci ginnaaw li ni mel ndax ndax dafa ñàkk kontaan ci doxalinu ñoom ñaar ñooñee di Cheikh Dieng ak Mayoro Faye mu jàpp ni sax ñoom ñaar ñooñee rek dañoo amoon ay bruit yi nga xamante ni indi nañ ko ci PDS gannaaw bi nga xamante ni indi nañ ko ci biir wàllu Sénégal gannaaw bi nga xamante ni rek dañoo daal di gis ni seen position ci li nga xam te moo di liste yi ñu taxawal ci élection législative yi ñoom dañ ko mérité wul dara ndax ñoom ñaar ñooñee dañoo gis ni fu ñu leen teg du numéro bu ñuy mérité fu leen teg du place gi ñu mérité ndax dañ leen a teg fu sore nga xamante ni ñoom dañoo gis ni mérité ñu ko xultu boobu nag ñu doon xultu la ñu gis ni moo naxari kii di Karim Wade tax na indi ñeneen daal di leen fa teg